jaar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak uh, mbir mu tiis ma woon ca Louga génn ko àddina soxna as soxna uh, mandat dépôt di jàllale ci kaso bi lañu def ñeent ci sage femme yëfa woon uh, seen ab àtte ñaar fukk ak juróom-ñaar ci fan ci weer avril bi lay doon lañ leen toppee ne accusation wala bokk ci wàllu kon li waral inculpé gi mooy dugal nit ci jéya ci ñàpp taxaw ba tey ci hôpital boobee bu Louga Amadou Sakhir Mbaye jàppale nit li nga xamante ne mooy service yi ubbi na ba mu des maternité ba wàllu xibaar bokk na ci tolluwaay la ci université Gaston Berger bu Ndar étudiants yi fay yëglu ak euh, kilifa daara ji na mu ko gisee directeur bi moom jàpp na ne ñoom seen coordination boobee euh, nekkatul ci yoon ci it euh, ku fa daal di gàllankoor njàng ma wala examen ak yu ni demee daañ la jàllale ci kanamu conseil de discipline recteur Ousmane Thiaré ni waxee chauffeur yi gaara sa mbuur ñoom taxaw ngir ñaaxante seen biir ci wàllu kaaraange ci tali yi ñu jàpp ne xalaat la bu tukkee ci programme Pago Trans la ñu ci jublu rek mooy fexe ba coppite doxalin ak toogin am ci tali ci senegal ci technique bi Abdoulaye Diop. Assane Gueye ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi ndakaaru Médina rue 15 angle corniche immeuble El Hadj ñu tàmbalee xibaar yi ak tolluwaay la ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu euh, diwaanu Louga ak euh, lu ñeel paatuk astu soxna euh, ñeent ci sage-femme yi nga xamante ni ñoo fa ci hôpital bi daal nañu def mandat dépôt jàllale ci kaso bi ñaar ñeneen ne ci bàyyik nëggandiku seen ab àtte nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi lay doon bokk na ci lañ leen toppee lu jëm ci wàllu dugal nit ki ci jéya bakkanam naka noonu dañ ci ànd ak Abou Abdoul Daaf kenn ci avocat yi juróom-benn di sage euh, ba ak Abraham Paul Pouy. elles ont fait face ñoom ñëpp jàkkaarloo nañu procureur ci ngoon gi ci suba la leen police bu Louga déféré ci noonu nag le procureur daal di jëlee dogal euh, ne ca tribunal flagrant délit la leen di jëmee bésub àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru avril maanaam àllarba ba leen ñu jëmaat am na itam ñaari nit yoo xam si ci ñoom euh, may nañ leen bàyyi néggandiku waaye nag ñoom juróom mbenn yëpp jàpp leen ni dinañ taxaw ca tribunal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril la liñ leen di toppee moo di euh, nit ku nekk ci danger ñu lànk koo taxaw elles sont poursuivies pour non-assistance de personnes en danger procureur nag jàpp na ne da leen yóbbu flagrant délit muy maanaam mercredi 27 avril 2022 leen di waaw donc bu leen leen jugé ñun dinañ teew ñun ak sama yeneen confrères yi ak samay nattango yi fi nekk ñun ñëpp dinañ teew incha allah oh, je ne vais pas commenter aujourd'hui les éléments du dossier parce que dossier qui est pendant mais nous quand même nous nit boo gi jàpp wala nit bu loo xam ne ay hôpital Amadou sax Mbaye mbay ñu ko waxee ubbiwaat nay buntam ba mu des euh, fi nga xamante ni euh, mooy euh, maternité ba ñëw nag ngiram paju dañ leen di orienté ci yeneen i service foofe

ca mbir ma mu jàpp ni étudiants yi nañu waxee ni bu benn seen morom ñëw ci université ba loolee teguñu ko benn ci yoon Ousmane Thiaré recteur bu université Gaston a jàng mu jàng te dinañ jël disposition yëpp. étudiants yi bu ñu ci identifié ngay wala ngay perturber devoir wala examen comme ni ko université waxee dañu la traduire en conseil de ma ngay dànkaafu nag étudiants yi di xamal itam seeni waajur ni bu fekkee ni lii ñu ngi koy wéel assemblée bu université bu Gaston Berger bu Ndar dina jël ndogal def benn wala ñaar ci session te nag dogal bu mu ci mën a jël. kenn dootu ci dellu ginnaaw. bu nekk dina réunir xool est-ce que mënante nañ def benn session wala ñaari est-ce que mënante nañ def ñaari session. ci jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi bëral na ni lu jëm ci wàllu coordination étudiants yi nekk ci ndar kenn reconnaître leen. université dafa def réunion. mu ne université reconnaître coordination des étudiants de Saint-Louis. fiy nekk ci université Gaston Berger bu ndar lépp lu leen étudiants yi tuumaal Saint-Louis RFM. Ousseynou jërëjëf euh, ñu des Saint-Louis ak euh, li nga xamante ni mooy centre euh, régionale des œuvres universitaires bu Saint-Louis du CROUS ak njiit la ak na mu gisee lu jëm ci wàllu kon taxawaay gi daanu yokk matuwaay foofu yëpp kaaraange rawatina ngir campus social ba di fa étudiants yi dëkk lekkee ka yeewoo mu ngi xamal étudiants yi ne lu jëm ci wàllu dogal yi nu jël saa su ne def ay ngénte tubaab di lekk ci luñ dul jënd ticket bu yàggee nag dafay daal di sooxeel université ba ak budget njiital CROUS Pape Ibrahima Faye ak Ousseynou Diop. mais nag du tee université bi nu muy màggee yi nga xam ni am na ci biir université nga xam ne ouverture sauvage yi am yi nga xam ne dana dem si village environnement yi daan def suñu kéemtulaay kàttan ba tëj ko yi nga xam ne moom mooy porte d'ouverture yi donc naam defoon nan ko def nan ko matul sax ñetti weer ñu yàq ko te ñu ko yàq caravane étudiants yi ñoom ñoo ko yàqaat donc problème comportement la ci biir université bi la parce que investissement yi ñoo ngi koy def mais investissement yi ko dee dafa nar te ñi koy yàq mooy ña nga xam ne ñoom lañ koy defaral ça pose un ñu daan kunne di ko defar daan ci waxtaan ak rectorat ba nga xam ni en tout cas porte yooyu yëpp en tout cas daan ko réglementé nun ko nun ko waree defee ngeen di ànd ak RFM xibaaru suba si juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor dem ak dikk beeg luy gën a wóoral wàllu woowee tali yi rawatina moytu ci jëy yenn ak doxalin yenn yi moo waral sëfëri gaaraasu mbuur euh, di ca taxaw ngir ñaaxam ñaaxante seen biir euh, lu tukkee nag népp xalaat ci programme bu ñu duppee Pago Trans leeral li Abdourahmane Diallo. ngir xeex lu jëm ci ñàkkum kaarange tali bi waaye tamit saxaar su bari si nga xam ne oto yenn saay da koy joxe nguur gi amal ab programme bi ñu duppee Pago Trans ci loolu ñu fas yéene sensibiliser chauffeurs yi ak ñu yëngu ci wàllum oto yi talaata bii nag ci gare routière bu mbuur lañu daal di ñëw Issa Thiaw mooy responsable programme ONG Green Sénégal. Pagod Pagotrans ñoom seen seen mission. mooy ñëw wër gaaru ceer yi di wax ak chauffeur yi. pour ñu changer seen ay comportement si ndawal yi vérifier également seen état véhicule surtout pour fume yi muy fumer. parce que oto aussi bi génn saxaar saxaar si day naaw ci kaw jaww ji te ñu ngi wax ay question de changement climatique. ci fànn yooyu daal lañ nekkoon di waxtaan. bon tey ñu ngi fii si Mbour rien que pour waxtaan ak chauffeur si sensibiliser si wàllu programme Pagotrans si comportement changement comportement chauffeur si. lu ëpp ñaar fukki chauffeur ñu daal di waxtaan ak ñoom ci ñeenti mbir transporteur yooyu di rafetlu mbir yooyu Alé Sey mooy njiitu gare routière bu Mbour. yu ñu itam bon suñu na ay points yoo xam ne points itam bon que am na njir parole yoo xam ni bon laaj nañ point yi bon wax na ñi wax na ñu moom delloo na leen encore quoi ay jafe-jafe yoo xam ni bon am na ci transport transport ku ne xam ne dafa bëri ay jafe-jafe quoi comme ñoom dañoo jóg nag def association dugg ci population pour yéen nit ñi pour waxtaan ak ñoom da xam ni ñu tam il faut bu ñu dañoo war a ubbi déglu ba li ñuy wax ñu dégg ko bu ñu fi jegee ñun ñu capté ko quoi. Pagotrans nag dal na dem ci lu toll ak juróom-benn gare routière seen mbébét mooy fexe ba daje ak képp ki nga xam ne dafay yëngu ci wàllum transport ngir ñu wax waxtaane nan la ñuy def ba soppi yenn ci jikko yi RFM bo Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane assemblée nationale ak jongante yi nu ci dëgmal Sénégal tànn gi jëm ci député di ndawal askan wi fanweeri fan ak benn ci weeru sulet lay doon su boobaa opérateur économique yi Sénégal danoo fas yéene ñoom du ñu yebal kenn waaye demal fa seen bopp moo waral ñu taxawal euh, kuréel duppe ko teewal koom-koom danoo gis ne seen njëriñal bopp ak wu nekkin daal ñoo ko mën a waxal seen bopp Ibrahima Saax la nu ci àndal euh, ci seen kàddu ak ndongu muy lancé li nga xamante ni mooy teewal kooku nekk loo xamante ni vraiment opérateur économique yi yi nga xamante ni dañoo nekk Sénégal yëpp gis ni il est temps ñu wut ay député yoo xamante ni dañuy teewal ci biir assemblée nationale ndax gis nañ ni Sénégal kat lu ci bari ay loi yuy jógee ka assemblée dal suñu kaw te amul bu ñuy défendre moo tax bu ñu waxtaanee ñu ne nañu fexe ba nga xamante ni élection yi di ñëw yi nga xamante ni moo war a am le 31 juillet deux mille vingt deux wut ñi nga xamante ne teewal ci biir pour ñu défendre intérêt opérateur économique yi ndax assemblée xam nañ ni loi yu bëri fa lañ koy te lépp loo xamante ni moo yor réew mi fa lañ koy am na ay organisation yi fi nekk dem nañu seeti kilifa yi waxtaan ci ñoom ku mel ni président Idi Thiam mi nga xamante ni ñun ñii mooy suñu président moom lañ ci njëkk a waxtaanal mu nangu ku mel ni Cheikh Cissé bu inaa ko yeesal waxtaan nañ président Khadim Sita waxtaan nañ ci moom rafet na ko ak ñeneen ak ñeneen jàpp nañ ni mbir mi dafa a sax am ay acteurs économiques jóg nañu pour dem ca assemblée pour ñu leen fa teewal pour seen ay intérêt mais également pour intérêt du Sénégal lu jëm ci mairie yi nag ak ñàkk wàccoo geeg lii di parité ak yamale góor ak jigéen ci li nga xamante ni mooy ndombo yi ñeel conseil municipal yi maire Ndiop moom ne bu sañoon ñi nga xamante ni na nañuy kalaame ci délai ya war ñu daal di leen delloo seen ak ak yelleef ci it ñi daal di def fi maanaam wàccuwul ak yoon respecté parité googe monsieur le maire Oumar Ba ñu teewlu ko soxna satu Ndiaye. comme yoon atte na ñu yore justice atte nañu wax nañu seen xalaat ci sama euh, xalaat donc euh, bureau. municipaux ya nga xamante ne ñëpp justice bi tranché na euh, am ay recours euh, ña nga xamante ne def nañu recours ñooñu dañoo war a euh, dañoo am obligation revoir seen bureau monter ko ni ko yoon bi waxee loolu amuñ ci lenn la nga xamante ne waruñ ko def mais nag li ci am solo aussi ñu war ñu war cee bay xel xam nga yoon dafa tëral délai de recours donc ku deful conseil municipaux ya nga xamante ne amul recours ci délai yooyu kon tax ñooñu <laughs> vraiment yaakaaruma ne ñu mën a dellu si gannaaw pour monter waat seen bureau ndax amul recours loolu la yoon bi wax ñi nga xamante ne dañoo defoon recours dans les délais requis ils sont tenus donc ñu revoir seen bureau donc euh, respecter parité bi loolu mooy sama xalaat. élection yi nu dëgmal ci palok njiitu euh, palok député ngeen baal ma assemblée nationale candidat bu euh, mouvement tabaxaat Sénégal ak waa bi moom euh, gis ne jafe-jafe am na xaat ci mbiram dentité ndax boo ko dëppee dana bind ci ginnaaw ku binduwul ci liste électorale yi noone lanu ko daal di dàkkantale ca mu ne loolu lu mën a gàllankoor candidature am la ci élection législative yi nu jëm Boubacar Seye ñu teewlu ko Ama Saïd Sène tey nag ñu nekk ci ma bëggoon ko partager parce que xibaar yi ngeen jàppale ñu ci pour Sénégal pour diaspora pour àddina bi yëpp yëpp ko pour que mu mën a am ay saafara le plus rapidement possible parce que lii ma dal nii tey ba tax ma woolee dal na pratiquement des millions de Sénégalais te dama jàpp ni sax xëy na njiitu réew mi xanaa yëgul lii wala boog ministère de l'intérieur yëgul lii parce que lii situation boo xam ni euh, baax na pour le Sénégal mais suñu demee ba élection digmal mu am ay filtre pour ñu éliminer ay candidats dama jàpp ni loolu baaxul pour suñu démocratie looloo taxoon ñu wale ni fii pour wax leen fi ñu toll ci liggéey bi parce que bi ñu demee ba commencé liggéey bi li ñaan yi wax parrainage ba ñu dëgmal vraiment papier administratif yi ñu soxla yépp pour mën a tàmbali liggéey bi comme ni ma ko waxee pour joŋante bi nga xam ni tey moom la Sénégal dëgmal en des élections législatives alors ñu nemmeeku gis ni pratiquement suñu carte d'identité yépp ñu ci bëri dañ leen di bindal non inscrite sur la liste électorale man particulièrement ma nekk tête de liste d'une coalition de mouvement qui s'appelle Tabaxaat Sénégal ak waa diaspora je crois que war naa mën a ñaan ndimbal ndax ñu xoolaat à la ñu may dérogation ba tey ci xibaar bokk na ca ubbite àtte bu suñu naatangoo bi di journaliste bu 7TV Pape Malick Thiam tey ci suba lay doon ñu fàttali rek nee lañ ko toppee mooy ñàkk war ma ci agent bu ne ci liggéey moo waral kon li nga xamante ni mooy kon euh, woolu geek àtte gi euh, RFM dina ci ànd ak yéen. sport geeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane dañu koy daal di door rek wàllu football ak éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023 ca Côte d'Ivoire lii di euh, groupe yi daal nañ leen xam gannaaw tirage au bi nga xam ni démb ñu ko doon amal foofu la ci Afrique du Sud Sénégal di équipe championne d'Afrique nag moo ñoo mu bokkal poule moo di Bénin Mozambique ak ñii di waa Rwanda di ab euh, ñetti équipe nga xamante ni Coupe bii nii weesu woon jotuñu ci woon qualifié Abdou Diouf Junior nag moo ñi euh, présenté adversaire au Sénégal ci ñetti équipe yi war a jàmmaarloog Sénégal Bénin rek moo ci xaw a ñeenti yoon yi nga xam ne ñoom waa beneen bokk nañ ko ci Coupe d'Afrique des Nations benn yoon la ñu yegg ci quart de te moo di woon ci atum 2019 Sénégal moo leen daanoon benn bal ci dara ñu ngi fàttaliku ne Gana Gueye moo dugaloon boobu le but juróom benn yoon football nañ ko waaye beneen mësula daan Sénégal benn nul daal mooy li gën a am solo ci ndaje yi nga xam ne am na kook Sénégal juróom yëpp dañu koo ñàkk Sénégal moomee ba léegi itam Mozambique koo dóor benn yoon la ñaari réew yi daje ci weeru weeru juillet atum 2021 la woon ci Afrique du Sud jongante poule la mu ñeel Kosafa bi nga xam ne moo ngi doon am foofee olympique yu Sénégal ñoom yi nga xam ne ndem si yàlla Joseph Koto moo leen doon tàggat ñoom ñoo gañe woon équipe A bu Mozambique benn bal ci dara ñeenti yoon a ngi nii nag ñuy bokk ci Coupe d'Afrique des Nations bi ci mujj mooy bu waaye nag saa su nekk ñoom waa Mozambique ci premier tour bi la yem noonee itam la waa Rwanda mel benn Coupe d'Afrique la ñu qualification boo xam ne moo leen di may ñu bokk ci Coupe d'Afrique des Nations daje nañu itam ak gaynde yu Sénégal waaye benn yoon rek la woon ci jonganteeb xaritoo ci atum la woon Sénégal moo gañe woon ñaari bal ci dara Sénégal moomee bëggoon na amal sax ñaari jongante xaritoo ak waa Rwanda waaye mujjul antu moo di jamono ji nga xam ne Sadio Mané ki ñooñam ñu ngi doon waajal Coupe d'Afrique des Nations muy Coupe d'Afrique boo xam ne ñoo ko mujj gàññe juróom déglu jàggat ma am mooy bon gisuma fi pour bu jafe wala bu wala bu yomb en fait dama jàpp pour yëpp daal c'est jouable parce que en fait euh, football bi ni mu demee ne léegi parce que équipe yëpp euh, euh, évolué donc boo xoolee CAN bi passé Cameroun je pense que comportement yenn équipe yi nga xam ne dañuy yaakaar ne peut-être ay équipe faible lañu comme ay Gambie comme ay Comores. comme également aussi yeneen équipe yi nga xam ne dañuy egsi ba ay deuxième tour troisième tour comportement bi ñu am moom moo fouetté mooy fouetté yeneen équipe yi nga xam ne que effectivement c'est possible te loolu également aussi je pense que jàngat bu ñu mën a am la donc je pense que am naa yaakaar ni équipe bu nekk en tout cas di nga jëm a fexe euh, jouer crânement sa chance pour mën a qualifier Coupe d'Afrique parce que en fait li tax ma koy wax sax moo di que ni en fait FIFA vraiment mi ngi jàppale équipe yëpp association yëpp pour ñu am un depuis presque dix ans mu koy def loolu moo commencé feeñ ci ci pays yi ba nga xam ne ku ci nekk pays bu nekk fi Euh, yaa ngi développé football yaa ngi am ay joueurs yu xarañ yoo xam ne effectivement mën na rivaliser ak ñu leen joueurs yi. yëf yi nag ca ba ñu koy door ci mois de mai Sénégal match bu njëkk dina daal di dal ñii di waa Bénin laata muy déplacé ci Rwanda daal di recevoir équipe bi di Mozambique Gambie moom ci euh, groupe G bi la daal di nekk ànd seeg Mali Congo ak Soudan du Sud Mauritanie groupe I bi ànd seeg Gabon euh, Soudan ak ñii di waa République démocratique bu Congo ci groupe D bi nag Égypte moo fa daal di nekk ànd ak République bu Guinée wala bu Guinée Conakry Malawi Éthiopie. ak itam yeneen groupe yi nga xamante ni ñàkkul ni euh, danañ ci dellu ci nu mu gën a yaatoo si suñu yeneen i jotaay xibaar waaye jàppale ni yëf yi nag danañ ko daal di door fanweer fan ci weeru mai laata ñu koy jeexal euh, lii di euh, maanaam fukki fan ak ñett ba tey ci weeru juin moo di match bu njëkk bekk ñaareel bi la ci des nag ci weeru septembre jàpp mars 2023 la ñu koy daal di amal ñu dal di wax euh, ca football ba tey waaye bi la yoon ca Angleterre ak euh, lii di euh, championnat bi di Premier League ni ki démb nag Liverpool daal dina foqati place bu njëkk bi ci Manchester City la ko waral nag moo di démb ca ba mu doon amal jongante mag diggante mag ñi di waa Manchester United ca Anfield di terrain bu Liverpool Liverpool moo ko mbal daal di daan ñeenti bal ci dara Sadio Mané nag jot naa dugal ba pare joxe passe décisive pour Mohamed jot naa dugal ñaari but doon ba tey bu championnat bu Angleterre moom itam jot naa dugal dugal ci eh, googule eh, jogante fi mu toll nii nag ñaari poñ moo daal di dox ci diggante Liverpool bu Sadio Mané ak Manchester City bi nga xamante ni tey ci ngoon dina daal di football ak ñi di waay Brighton féete jamono gi eh, ci fukkeel place ci classement bu championnat bu Angleterre ca Espagne gi seen 33 journée ni ki démb Villarreal bu Boulaye Dia daal dina am ndam ñaar ci dara ci diggam ak ñi nga xam ñoo di waa Valence Boulaye Dia sax moom na dugg ci li nga xamante ni moo di deuxième mi-temps bi ci jël seen coupe euh, nationale ci Italie bokk foofu démb Inter de Milan Italie ka fa njëkk a qualifié ci wàllu final seen coupe nationale moo di Inter Milan Inter de Milan mi nga xamante ni dafa daal di am ndam ci demi-finale bi diggante Milan AC ñetti bal ci dara ñoom nag waa Inter de Milan tey ci ngoon danañ xam kan la ñuy taseel si gannaaw jongante ko nar a dox ci diggante Juventus de Turin ak ñi di waa Fiorentina. ñu culture beeg maa ngi leen di nuyu mbokk yi artiste bi di euh, Chula Ndiaye mu ngi woy di euh, engagé wu ngir euh, développement wu Sénégal ay weer ngeen ni woykat bi daal di door ay activité jaarale ko ci ab concept di ubuntu la daanaka bi mu tàmbalee ci musique bi ak léegi atum 1996 ci tànk yooyu la fas yéene di wéy di dox Aminata Ba waxtaan ci ak moom. am réew bokk ci singalam yi gën a fës Soula Ndiaye di wax saa su ne ci ay woyam ni nga xamante ne noonu la askan wi di dundee. donc jàmmi réew moom yàgg naa ci jàng xale yi yàgg naa cee wax santé bi aada ak cosaan ci mbirum identité culturelle yàgg naa ko bëgg di valoriser am na thème yu bari environnement. mu bàyyi ko ci Tëngéej artiste bi teel a dugg loolu ci musique ci atub 1996 moom nag ay jegeñaaleem ak yeneen i artist ñoo ko ci gën a xiir. ah musique de <laughs> dama ko ko bëgg rek dama ko bëgg depuis xale. voilà di ko fowee ay dama ko bëgg rek. bëgg ko ndax am na nu may def. dina saay sax te guitare bi sol samay daal dem ci nit ñi xool. lu xew waxtaan ak ñoom wala dara am nga bàyyi ci xel. Ramata Ndiaye ñu gën koo xamee ci sulaa Ndiaye moom nag muy activiste itam jamono ji mu nekk di waajal ay projet lu ñeel aada ak cosaan nga xamante ne da koo fas ni amal ci xarala yu yees yi ak yeneen yi artistes. war nañu mën a créer ay cadre d'échange voilà donc ma fii dajale nag ay panélistes ak ay artistes yu jógee fu nekk ci àddina bi te léegi fenn soreetul ndax mbirum xarala yu bees yi ak digital bi donc euh, ñu koy def euh, bi yoon nag maa ngi préparé Tëngéej le 23 avril samedi benn webinaire plaidoyer international boo xam ne mu ngi laal ci mbirum tourisme. ginnaaw ay at bi mu nekkee ci milieu musical bi Sula Ndiaye nekk di liggéey ngir génni albumam bu njëkk daal di koy jagleel ay fansam. ci wàllu euh, cinéma édition 2022 Teranga Movies Awards dina door ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin gi ñu euh, dëgmal bi la yoon organisateurs yi dañoo daal di euh, soppi tur bi tuddee ko les Teranga soppi itam concept bi ndax du yem képp ci app cérémonie de remise de récompense waaye dina doon ab festival war a yàgg diirug juróomi fan thème bi ñu fas yéene nag waxtaanee mu ngi jëm ci wàllu euh, place su jigéen ñi jaarale ko ci cinéma. alarba ji nag euh, juróomeeli fan festival salaam festival international de musique et de chant religieux activité yi ñu ngi woy euh, tey ji nag ñu ngi jëm ba Mbour rawatina ca terrain sant su mbokk yi fii la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. transfert d'argent bi wóor Ria. seen savon yi di créole. ak seen déodorant Malaysia Umo. ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga di fa asu soxna faatu juróom-benni sage-femme ya fa newoon kerak ba muy faatu ñeent ña ñoo nga ca kaso ba xibaar baa ngi ci xët mu njëkk l'Observateur ubbil yéenekaay bi Ami Sène Ndeye Khady Lo Ndeye Fatou Gueye ak Penda Diack ñooy ñeenti sage-femme yi ñu mandat dépôt démb ba jël leen yóbbu ca kaso ba àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril Observateur nee nañu ci la war a janoo ak attekat bi yeneen ñaari sage-femme yi leen may li ko donte musiba ma di xew ñoo nga woon ci l'hôpital waaye ndem si yàlla astu soxna bokkuloon ci malaat yi ñu doon toppatoo terewul nag ñoom ñëpp mu de ñeenti sage yi ca kaso ba ak ñaar yi amee liberté provisoire ñoom ñëpp ñoo àndandoo taxaw ca kanamu àttekat ba mercredi avril non assistance à personne en danger di nit ku nekk ci fit na nga mën koo xitili ba noppi di ko seetaan yéenekaay bi nee nañu lii bokk na ci tuuma yi ñu leen di toppee ñu topp kaso juróom-benn lañu ñeent ña prison lañu fanaan les économies ñaar ña ca des li tax ba demuñu kaso ànd ak seeni natango moo di dañoo tollu diggante maanaam dañoo ëmb ba ci seeni nopp le quotidien bi ci xëtamu njëkk ne mbirum asu soxna yéegal na température bi teg nañu loxo juróom-benn sage ba mandat dépôt ñeent ña ci jamono joojit yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne ñoo ngi jëm ci ñetti fan yu santé bi nara sooxee ci réew mi muy tey di suba médecin yi la ginnaaw suba pharmacien yi la li waral coow leeg mbambuli ñulug leen mitti leen ba tax ñu fas yéene soobu cib defante l'observateur mi ngi ñu koy leeralal li leer ba leer Sud Quotidien nee nañu moo di waa ànd gësëm fa ñu teg seenu tànk teggiwuñu ko teg nañu seen juróomeelu plan d'action bokk na ca grève générale ñaar fukki fan ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril négociation yi ñuy séq gouvernement bi la ne dañu leen bëcc biir gis fàttali ko source wa hôpital Dantec gi ñuy tiit ak jooy ak màggetaayam yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne état bi jël na engagement bi liggéeyaat ko ci weeru septembre bii di ñëw ci la ñuy tàmbali travaux yi ci diirub at ak juróom-ñetti weer la ñu ko war a liggéey juróom-benn fukki milliards mooy xaalis bi ñu war a defaraate hôpital Aristide Le Dantec rëyaayam war naa toll ci ñaar fukki hectare tolluwaayu politique bi ak direct news mi xëy di laaj ci xëtamu njëkk ban d la àndandooy Macky Sall yi am ñu toll ci gàttal allié Macky Sall yi ban njariñ la ñu ko amal moom Macky Sall ndax ñu bari ci ñoom ci élection locale yi ñu génn ci la yéenekaay bi nañu boo jëlee Moustapha Niasse Abdoulaye Diatta da koo duma ca Kër Madiabel akub liste parallèle nga dem ca Louga Aminata Mbengue Ndiaye ma fa wone woon ak péetam ci Mamadou Mamour Diallo Moustapha Diop da ko faa duma duma yu métti ca kees waxuma la Idrissa Seck ma ñu fa toroxal ba ca biir bureau de votam waaye mbër mu fa parti réew mi sampoon rek ci jóg faxasu te muñ ca nga mujj ñu mujjee journal La Tribune moom li ko jaaxal te mu bëgg koo xam moo di kii di Abdoulaye Baldé lan moo ko tëye ba léegi ci biir Benno Bokk Yaakaar transfert d'argent bi wóor RIA seen savon yi di créole ak seen déodorant Malaysia UMO. ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed euh, di ko gërëm ak yéen di doon teewlu xibaaru 8h yeeg RFM coowal euh, paatuk euh, soxna astu soxna ca Louga dañ lañ jàllale ci kaso bi ñeenti sages-femmes ci ña fa ne ney liggéeykat ci hôpital ba war leen a ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril wi ñaari sages-femmes yeneen ñoom jamono yi ñu ngi ci liberté provisoire àtte bi 27 avril lay doon hôpital ba nag ubbiwaat nay buntam ba mu des maternité ba. wàllu xibaar bokk na ci it recteur université Gaston Berger ba ca Ndar bi yëglu ak grève étudiants yi fa coordination bi amal grève bi daanaka mu ne assemblée université ba reconnaître ko euh, ba ci topp mooy képp ku ca bëgg a gàllankoor njàng meeg examen ak yu ni mel daañu la jàllale ci kanamu. conseil de discipline chauffeur yi garage Mbour taxaw ngir sensibiliser ñaaxante seen biir ci wàllu kaaraange ci tali bi euh, muy xalaat tukkee ci programme bu ñu duppee Pagotrans lanu ci jub rek mooy fexe ba soppi doxalin dawalin ci tali yi Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi digital geeg soxna Yacine ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen jox ndaje ci kanam tuuti ci pencoo geeg RFM